Bom ak feebaru ngas ak feebaru bëy léegi nag bu amee at ak da ngay ñëw ñu defalaat ko ñàkku ngas boobu mooy dëgëral ñàkku ngas dégg at ak ñetti en même temps bu ba day vitamine A bi juróom benn weer yu ne mu ñu jox ko vitamine A ba keroog muy am juróomi at léegi kon rendez-vous bi ci des mooy bi at bi jël si vitamine A bi dara xaaraat ak ñetti weer bi dem waaw ok ah njëriñu vaccination moom yaakaar naa ne ñëpp gis nañ ko léegi xam nañ ko parce que gis nañ feebar yi nga xam ne ñoo daan faagaagal xale yi nii mu delloo ginnaaw te loolu nag ci ndimbalu dëgg-dëgg ak taxawaayu ministère de la santé ak ñi koy jàppale ñëpp ñi koy jàppale boole ci UNICEF UNICEF mu dem ba nemmeeku ne réewu taax yi euh, dëkku pays yi léegi am na ay jafe-jafe pour jot xale yi yëpp léegi nag looloo tax ñuy ut lu mel ni pexe yu mel ni nii dugg ci quartier yi seet jigéen ñi nga xam ne xëñ na waxtu yi ñuy ñàkk danañ jàpp wala duñu am jot wala xëñ na fa ñuy ñàkkee sori na ci ñoom wala rang yaag yooyu nekk na ay jafe-jafe yoo xam ne léegi ñu gën leen a jegeeñal euh, ñàkk yi comme ça xale yi mën a def seen ñàkk ba mu mot sëkk loolu daal moo indi woon ñu indi pexe yi nga xam ne dañu dugg ci quartier yi gën a jege nit ñi seet xale yi fu ñu toll ci seen ñakk ñu mottali ko ah loolu day xam nga ne moom waratu la ne xam nga loolu moom day loo xam ne waratu la ne juddu ci Sénégal gii ba am at te soo ñakk loolu moom wax dëgg yàlla ah kooku day sàggan na sàggan na trop parce que poste de santé boo dem ñu ngi ñàkk ñàkk yoo xam ne laajatuñ la dërëm loolu moom wax dëgg yàlla yal nañ ci yàlla musal kon nag nañu góor góorgóorlu ah gën a teewee ñàkk yi tey tamit euh, fagaru pour suñu njaboot ci daal ah waaw xam nga loolu moom loolu yëpp gënul xam nga loolu gënul moo tax gis nga ko sànq bi mu ko ñàkkee par daf ko ne sa rendez-vous tel la fàttali bi daf cee baax jox ay nattuwaay bu tolloo fii wala bu tolloo fële nga ne ko na ñëwaat waaw waaye nag boo fàttee yi tamit saay woo ko fàttali koo rek dawal nga dem ñu mottalil la waaw ndax kañ ah xanaa sant yàlla fukki feebar ak ñaar la koy aar dañoo jóge woon ci juróom-ñaari feebar léegi Sénégal a gur góorgóorlu ba léegi ñu ngi aar fukki feebar ak ñaar xale yi ñooñu ëpp chance kon nag loolu nja nu mu tuddati waajur yi bu ko xañ seen njaboot ah li fi daan am yow da nga doxati ba gis lompañ da nga gisati ba xale boo ngas ah Yenen feebar yep kenn gisatu leen mais bu amee ñuy sàggan ñoo xam ne ñeneen ñaa ngi ñàkk ñeneen ñi ñàkku ñi tamit feebar gur day pun si moo na ci pour ñu rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen di ziara di ñëw fii di leen yëgal ne tey ji doonoon na journée boo xamante ne nii journée de mobilisation la ñu amaloon ci benn caravane boo xamante ne ni depuis huit heures huit heures ba léegi ñu ngi ci terrain bi depuis huit heures demi demie la relais yi ñëw ànd ak bàjjanu gox yi fekk ñu ci poste bi ñu ànd ci terrain bi li ñu ci jublu woon nag mooy euh, soññewaat. bu baax ndax nit ñi gën a fonk ñàkk yi ndax gis nañ ne ñàkk yi de daa doon loo xamante ni moom rek moo mën a aar xale yi ci feebar yi nga xamante ne ni dafa gaaw a wàlle te ñu dëkk ak moom feebar yooyu nag bari na toll na ci fukk ak ñaar yoo xam ne tey jii PV bii ñu nekk moo ko mi ngi koy xeex muy fukki feebar ak ñaar yoo xam ne xale bu ñàkku correctement te ay ñàkkoom mu teg ko ci yoon sunu borom mën na ko cee musal loolu nag lañ doon doxub ñaxtu di ko waxaale askan wi di leen gën a soññiwaat pour ñu gën a ñi nga xam ne seen i xale ñàkkooguñ ñu mën leen a yóbbu ci poste de santé bu leen gën a jege ñu ñàkkal leen wala ñu tase ak ñun ndax bi ñuy dem tey jii stratégie bi ñu amoon dañuy jëlaale woon ay ñàkk ak ay ñàkkkat dugal ci biir oto bi ñu àndaloon ngir xale bu ñu taseel rek boo xam ne sa rendez jot na ñu mën laa ñàkkal fi saa si muy doon nag euh, doon na ay pexe yoo xam ne tey ji gis nañ ne am na am na solo buñ ko gënoon a baril dinañ gis dina ëpp gën a ëpp njariñ ci askan wi parce que am na soxna yoo xamante ne nii xew-xew yi dina leen téye am na soxna yoo xamante ne nii daanaka fekk gisuñu événement bi am rek duñ door a bokk ca la ñuy organiser kon tey ji ça nous permis bi ñu demee ci terrain bi ñàkk nañ fi lu mat fanweeri xale yoo xamante ne nii ci terrain bi lañ taseeg ñoom seeni rendez-vous jot na waaye seeni wayjur amaguñ woon jotu indi leen ci post bi ngir ñu mën leen a jàkk ñàkk kon stratégie bi ñu def tey permettre nañu loolu ñu def ko nag ànd ci ak euh, le superviseur du PV Mouhamadou Sène euh, ci ndimbalul euh, UNICEF muy activité boo xamante ni tey jii lañ ko amal njëkk fii ci centre de santé waaye ñuy ñaan yàlla mu gën a yaatu ci dëkk bi ba nga xamante ne ni xale yépp dinañ leen mën a daj ndax feebar yi nga xamante ni moom la ñàkk di aar ba tey mi ngi ak ñun mi ngi dëkk ak ñun li tax gisatuñ ko rek xale yee aaru ci ñàkk kon nag buñ bàyyi suñu loxo nañ gën a fonk ñàkk yi gën ko respecté ngir sunu borom gën a musal xale yi ba nga xam ne feebar yooyu yépp dina fi jóge feebar lu mel ne ŋas doy na sëkk wax lu mel ne lompoñ doy na sëkk wax lu mel ne jàdd doy na sëkk wax te ëpp na loolu mat fukk ak ñaar la kon nag borom kër yi buñ duggaatee ci kër yi nañ gën a soññee ndax di saytu aussi seen ñàkki doom yi ndax jaar na teg nañ ko ci yoon wala teguñu ko ci yoon wala ñi ngi dem ak déet loolu bokk na si ñoom ndax ñooy faj jigéen ñi aussi ñi yàlla teg xale yi seen loxo war nañoo saytu am genn jot gi ci ñoom te xam ne ñàkki farata la du sunna farata la ndax lépp loo xam ne day laal wér-gi-yaram rek ci farata la bokk kon daal ñoom it ñu ngi leen di soññaat bu baax ñu gën a toppatoo xale yi ci wàllum ñàkk yi di respecter rendez-vous ndax loolu mooy li nga xam ne moo leen mën a aar kon tey bis bi ci loolu la ñu xëyoon bis bi nag commencé nañ ko ci bisimilah rahmaani rahim eggale ko ci alhamdulilahi rabil alamina ñi ngi sant yàlla bu baax di sant relais yi di sant bàjjanu gox yi di sant équipe bu district bi di sant suñu partenaires yi nga xam ne ñoom la ñu àndaloon ci journée bi ñoom ñëpp ñi ngi leen di sant di leen gërëm te di wax ne li nga xam ne moom lañ si jublu woon suñu borom defal nañu ko si muy ndam liñ si doon wut am nañ ko ci ñi ngi sant yàlla bu baax te di leen jox rendez-vous beneen incha